mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu euh, ñu ngi ñëwoon fii ci prison Sébikotane seet si suñu mbokk suñu wëllëre suñu xarit Pape Alé Niang nga xam ne nguuru Macky Sall teg na ko loxo euh, wala sax dañ naan enlevé na ko euh, boobu ba léegi def naa gën saa gàtt def na ñetti semaine ñu ñëwoon seet si ko nemmeeku ko waxtaan ak moom tuuti seet fu mu toll ñëw nañ fekk fi koo xam ne waxtaan ak ñun waaye li ñu njëkk a nemmiku mooy loof na lool sonn na doole gi néew na kàttan gi néew na ndax yéen ñëpp xam ngeen ni ay fan ci gannaaw la jël décision ne day def grève de la faim maanaam day dakkal lépp luy lekk ak naan ngir won Macky sal ni jaay doole gi mu ko def àndu ci ñu gis nag ni loolu am na jeexital trop ci yaramam ba xaw naa tey suñu xel. sonn na kattan gi wàññiku na ñuy wax nag ni lu ko dal ci lii lu ko dal ci lii rek nañu xam ni nguurug Macky Sall ak justice am ndax li nekk ci réew mi ñëpp teg nañ ci bët jaay doole gi bëri na euh, injustice bi bëri na ñàkk tolloole bi bëri na waxtaan nañu mu wax ma niñ ko enlever nañu def du arrestation waaye dañ ko enlever nañ ko enlever forcé ko yóbbu ko ay ponkal ñëw gaare seeni pick-up yenu ko takk ko ci digg yoon bi dugal seen oto yóbbu polis yóbbu ko polis it naqaral ko ko teg ko ci yooyu teg ko ci ci ci ci violon di ko interroger ba ay trois heures du matin loolu yëpp waxtaan nañ ci ba niñ ko defee mandat dépôt muy lu ñu ñaawlu trop ci koo xam ne da doon def liggéeyam ñu bëgg gëmloo Sénégalais nii kooku lënkaloog opposition bi rawatina man mi Ousmane Sonko kooku day politique kooku su bëggoon politique ñëpp xam nañ Pape Alé bu doxoon ba jël décision day def politique ñëpp xam nañ ni am na sañ-sañ am na fit dina taxaw ne ñëpp damay politique yorul carte de membre benn parti politique àndul ak kenn waaye ku ko xamit xam ne bi mu amee bi mu commencé carrière ba léegi te jamono jooju man dugguma politique fépp fa injustice mu sa am moom mi Macky Sall bi muy nekk opposition nguuru Macky nguuru euh, ci nguuru Ablaye Wade am jafe-jafe yu mu amoon ñëpp gis nañ taxawaay bi ci Pape Alé amoon kon kooku suñ ñëwee ba tey di ko jàpp naan ay day politique ak dafa ànd ak diwa wax yooyu waxu daanu saret la ñuy dànkaafu nag nguuru Macky Sall nañu bàyyi Pape ale Niang mu ñibbi këram ci njabootam balaa njaaxum di am ndax doon deret gu yok ci deret yi nga xamne tak na seen bako ba ñu wéso Pape Alé nak ndax fi prison bi Abdou Karim bi ngi fii prison bi Cheikh Omar diadi bi ak keneen keneen ñi wax ni ñu ngi ñaan nguuru Macky Sall kep kuy prisonnier politique nako bayyi bàyyi te bàyyi ñi mi japp ndax jamono ji ñi wax ak yeen japp na fadil ji nga xamne ñepp xamne ni sama bras droit la di liggéey ak man te liñ ko jinn moy post Facebook bu mu def jamono joji nitu Macky Sall ngi taxaw fi ne man xamna ko ray ñaari soldat yi disparaître dañ leen ray ta xamna ni mu demee te procureur wowo ko ñàkk tollale googu injustice bobu am Sénégal Fadilou Keita lu mu def wax rek ni ñi disparaître gendarmerie da cee wax wara wax armée da cee wara wax ñu daldi wo ko tay yobbu ko kaaf war ko présenter procureur ta xamna ci muy injustice yo fu mu am ci réew mi fu muy mujjee du baax kon ñu ngi leen di wax nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñuy jàpp nañu bàyyi Pape Alé Niang nañu bàyyi prisonniers politiques yi yëpp démb rek ci négalis si jàpp nañ ñaari ndaw ci samay ndaw yoo xam ne li ñu leen doon reproché mooy dañoo topp ci convoi bi bi may dem mu ji di filmer nee nañ waruñu woon filmer Rebeuss wala yu demee noonu tey ñii ñu ngi leen ñu nekk seen loxo kon. di wax sénégalais yépp nag ni Pape Alé Niang ko dal rek dañu xam ni Macky Sall ak régime am ñoo ko ko teg te dinañu assumer la responsabilité ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum